bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam ñu déglu asalaamu aleykum wa seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee Riyaadu Saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu suna di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bu ñu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey moo war a nekk incha allah suñu fukkeelu daje ak ñeent fukkeelu daje ak ñeent taxawoon ci addi sub junneeg juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk juróom fi sallallahu alayhi wa di waxe ci mbirum jënd ak jaay mbirum jënd ak jaay nekk loo xam ne tabaarakallahu sallallahu alayhi wa sallam da ci àddu mu doon tere bayul xaadir lil baadi di tere te làqi rukbaan di tere jaay ci sa kaw moroom jaay ci sa kaw njaayu moroom di tere labat jigéen ju ñuy labat démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñu tolloon ci laa tatalaqawu sila xata yuhbata biha ila al aswaq di gàttandu marchandise bàyyi leen bañ wàccee ko ca marché ya bàyyi leen bañ wàcce ko ca marché ya ndax nit ki mën na gàttandu nit jënd am marchandise moo xam ne bu agsi woon ci marché bi gën ca moom gën ci waa marché <coughs> gën ci moom gën ci waa marché ci misaal waaye ngi nii joo xam ne dafa jënd ay xar e, ca Mali walla ca jawbe jëm seeg moom Dakar bi muy ñëw Dakar Mor Khoudia daal di koy gàttandu ca yoon wa moom fa mu jënde xar yi mi ngi leen jëndi xar vingt mille vingt mille vingt mille bu ñëwee dakaar lu mu ci teg jaay bu xar seere ba xeer seer mu jaay leen trente mille trente cinq mille jenn waay yëg na Dakar xar dafee raar te daa xaw a seer mu dem gàttandu waa ji jënde woon vingt mille tegal ko trois mille trois mille daa di gàddu xar ya indi Dakar di jaaye quatre mille quatre-vingt-dix mille lor na ka yoroon xar ya lor na waa Dakar lor na ka yoroon xar ya lor na waa Dakar njëndante moomu ak njaa jaayante googu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy tere commerçant yi waaw mu ngi koy tere commerçant yi lu am solo la boo demee di jàng économie islamique dafa am ay règles yoo xam ne nun sunu penc du ci bàyyi xel ci wàllu jënd ak jaay moo tax nga cay ne ba mu yàgg rek yëf yi ne këpp wala mu ne mes ñu jiiñ ko ku ne ndekete yoo du ku ne yawa <clears throat> loolu day am ci transport bi am ci marché yi am ci projet yi am ci yu baree baree baree bari te laqi rukbaan <clears throat> te te laqi rukbaan joxalante boobu nga xam ne waa ji bàyyi ko mu indi xari boppam jaay xanaa dañ koo gasandu jënd xar ca bopp ca moom indi ko jaay wala sax léeg-léeg ñu leb ko ca moom jaay jox ko xaalisam loolu day xew ci bu seko bi ubbee tabarakallahu ba njëndum gerte mi tàmbali bokk na ci ñi li ñuy lor ñun baykat yi mooy yu mel noonu yu mel noonu mooy diggante opérateur yeeg usine beeg yu ni demee tabarkalla <coughs> وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقال له طاووس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمار متفق عليه mu ne ibnu abbas radiyallahu anhu nee na yonent ba neena na bàyyi leen gàttandu jaaykat yi bàyyi leen gàttandu jaaykat yi waaw waaye ki dëkk ci taax yi na bàyyi jëndante ka ca kaw ga waaw mu ne ko waaw lan mooy jaayante ki ci taax ya ka ca kaw ga mu ne bu mu nekk intermédiaire bu nekk intermédiaire am simsaar waaw mu ne ba mu nekk simsaaram intermédiaire intermédiaire u njënd ak njaay ki nga xam ne amul marchandise te bëgg dugg ci diggante ba léeg-léeg tabarkàlla mu yàqul bu ñu bàyyee kële indi euh, mooy gën ci ñoom mu ne kon sallallahu alayhi wa buñ def buñ jaayantee noonu mu waxaat ci beneen hadis boo xam ne abu hurairata moo ko nettali mu ne yonente ba naha rasulullahi an yabia xaadirun libaadin wala tanaajashu wala yabiu rajulu ala bayi aqih wala yaxtubu ala xitbati axih wala tasali lmaratu talaaqa uxtiha li takfa ma fi inaiha aw kama xaala sallallahu alayhi wa sallam ci hadisu asahaabiyul jalil abu hurayrata abdurahman ibnu saxr addawsi nee na yonent ba nee na dafa tere an yebi am muy jaay xaadirun ki dëkk ci taax yi li baadin ka dëkk ca kaw ga wax naa nag ni tomb boobu moom <laughs> na ko oustaz ahmed daam njaay ak docteur abdoulaye lam lijjanti waaw ko lijjanti ñoo jàngi loolu <clears throat> euh, mu ne bu leen di naxante ci jënd ak jaay bu leen di ci naxante jaay waa ji loo xam ni yow xam nga ni baaxut nga kaañu ko toog mu ne bu leen ko def bu kenn jaay ci kaw njaayum mbokkam bu kenn jaay ci kaw njaayu mbokkam waa ji di jënd euh, nga jaay ko ca kaw njaay ma waaw bu kenn jaay ci kaw njaayu moroom kon mi ngi waxaale di jënd ba ca sa yoon nekk bu fa nekk naan ko kaay fii fii gën a yomb bu ko piis bu ko piis waaye alayhi salaam indi ca leneen ci ci boobu mooy bu kenn labat jigéen ju ñuy labat <coughs> waaw gëraaloo day indi bañante day indi ay pexe gëraaloo mooy jënn jigéen joo xam ne ñaar dañ ko roy dañ koy labat waaw yonent bi mu ne bu leen def loolu jigéen buñ yëgee ne am na ku koy labat mu ne nañ ko bàyyi mu labat ba noppi walla mu bàyyi kuy labat door labat waaye ñaar labatandoo jigéen yonent bi nee na bu leen ko def yéen jigéen ñi bu leen ko nangu bu jenn jigéen nangoo am ñaari far waaw faran faran farantu it bu mu yàgg <coughs> bu yàgg de waaye toog rek labat moo xam ne kenn xamul kañ li jëm ndax penc mi terewuñ ko labat koy takk la ñuy tere waaw da ñëw kër nogay tabaarkàlla di dugg ak génn yaag doom ji nogay du lijjanti yoonam ne ku ci ba nga ñëw ne ko damaa bëgg a takk mu laaj la saw sant nga ko saw sant mu dàq la tabaarkàlla yooyu de bokk ci moom waaye jëpp jigéen joo xam ne am na ku koy labat na nga ca génn mag ñee daan wax boo ñëwee di wax ñu la diw dañ ko diwa ci takku sagar waaw diwa ci takku sagar ndeysaan mu waxaat leneen ci biir hadiis ba tey bu jenn jigéen conditionné jëkkëram ci na ko fase ndax takk diw waaw maanaam fasiyel diw te takk ma wala duma bokk ak diw kër gi wala tas'al al mar'atu talaaqa uxtiha li takfaa ma fi inaiha ngir jël la ca ndabam ngir jël la ca ndabam ba maanaa jigéen bu fekkee da ko koo bëgg a takk mu indi la condition dangay wàcc sa aawa ca takk ma bu la indil la condition boobu yonent ba nee na loolu jigéen jooju def daganut góor ga ca ànd ak moom lañ def ñoom ñaar daganut mu ne bu genn jigéen def loolu waaw bu genn jigéen def loolu waaye bu góor nangu loolu wëccal kii ñu door a mën a ànd waaw danay xew nag ci penc mi <laughs> tubaarkàlla te ko ñaareel ñu ne mukk na dañ mbaa ma dañ ngeen baal ma na dañ mbaa sama bos dañ nga te ko ñetteel ñaareel ne mukk na dañ mbaa sama bos dañ nga takum ñeenteel ñetteel ni mukk waaw ndax pénc mi bëgguñu bëgguñu wujje waaw tabarkàlla toi toi et moi rek lañ bëgg <laughs> professeur Djibi <coughs> sallallahu alayhi sallam ci beneen riwaaya naha an ittalaqi wa an yabtaa almuhaajiru li aarabi wa an tashtarita almaratu talaaqa uxtihaa wa yastaama arrajulu ala sawmi axii wa nahaa an wa tasriya muttafaqun ali nee na ci beneen riwaaya alayhi salaatu salaam tere na gàttandu jaaykat tere na gàttandu marchandise waaw tere na tere na nee na muhaajir beeg kaw-kaw bi di jëndante ndax naxante ba fa mën a am ak kee ñàkk xam li ci marché bi ba wanteer lam am ki jënd ko dem jaay ko ñële tere na it jigéen juy sartoo nañ wàcc sama wujj tere na jigéen juy sartoo nañ wàcc sama wujj tere na ku fekk kuy jaay di waxaale ngay waxaale ca kaw waxaale ma waaw mu ngoog tere na kuy naxaate waaye tere na kuy euh, kuy sol xar sol xar mi ba fàmb yi ne faaj ndekiti munta lekk nga dem jaay ba tey ci beneen hadiis mooy bi ci tege abdullah ibnu amar mu ne yonente ba alayhi salaam nee na laa yabi baadukum ala bayi baad wala yaxtub ala xitbati axi illa an yazana la mu ne bu kenn ci yéen jaay ci kaw njaayu morom ja bu kenn ci yéen labat ci kaw labatu morom ja lu dul mu joxe ndigal lu dul mu joxe ndigal joxe ndigal mooy lan labatatuma labatatuma mu bàyyi yow nga labat sas <laughs> iran ndaw nee na boo ko defee ci penc mi waa penc mi seen xel yi tabarkalla naan ah kon de dañ doon ngoro nee na mën nañ koo commenté ba xëy dem ca sa wara waaw sas iran ndaw tabarkalla yàlla na ko yàlla yokk wér mu ngoog yonent bi daal nee na bu fekkee waa ngi labat bu labat bu yëgee boo yëgee ne bàyyi na wala mu jox la ndigalu mën ngaa labat bàyyi naa nee na labatal nee na léegi mën ngaa mën ngaa labat waaye muy labat ngay labat ngeen di gëraaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu bu leen ko def ay mbokk duñu def loolu ngoog eh, mu ñëw ci beneen bunt mooy di tere idaatil maal fi xayri wujuhi sànq alal ci anam yoo xam ne sharia diglewul ko ca def alal di sànq alal maanaam di dugal alal fu mu dugg àdduna bu kenn defe ne alal joo am lu la neex def ca déedéet professeur fi mu nekk nii bu fekkoon jenn waaye day tux di póon di ra di raab di ko taal di jëppoon dañ koy jàpp ndax loolu kenn waru ko def suñ xaalis bi maanaam nit rawatina ab jullit am na yoo xam ne ci alalam sañu ko caa jënd mukk am na yoo xam ne sañu ko caa def yu baree bari la yoo xam ne euh, alal duñ ko ca nangu loolu loolu la bunt bi di jàngale tabarkàlla 356 an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala yarda lakum thalatha wa lakum thalatha fa lakum an tacbuduu wala tushriku bi shay'a wa an taatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wa yakrahu lakum xiila wa xaal wa kasratu almaal wa idaat almaal wa kasratu sual wa idaat almaal rawahu muslim dikkoon na ci biir riyaadu saalihin yi weesu abu hurayrata nee na yonente ba nee na sallallahu alayhi wa yàlla ñett neex na ko ci yéen ñett soof na ko ci yéen yàlla nee na ñett neex na ko ci yéen ñu ne waaw mu ne ñett soof na ko ci yéen ñu ne ko ñett ñi la neex yana mu ne ba ca jiitu ci yi ma neex mooy ngeen may jàmm man dong te bañ maa booleeg dara waaw nee na boobu neex na ko lool ñu koy jaamu moom dong te bañ koo booleeg dara waaw duñ jéem a xam lu gisaane duñ gisaanelu te barkalla duñu takk ay joxur-joxur waaw duñu seeti liggéeykat jabarakat te barkalla yooyu yëpp duñu ko def mu ne loolu neex loolu saf na ma lool ci yéen <laughs> subhaanahu wa taala mu ne ko lool bàyyee ko suñu bopp rek la Cheikh Abdoul Ahad wax rahmatullahi alayhi wa radi anhu kéwal gi ci àll bi ak béy wu ci kër gi ne ne gi ci àll bi ak béy wu ci kër gi mu ne mu ne njàng mu rëy ci biir mu ne béy wi dana la jàngal kéwal gi dana la jàngal ne ne wi lim lay jàngal mooy am kilifa am kilifa mu ne waaye kéwal gi mu lay jàngal mooy wakiirlu te ñoom ñaar ku ci ne bokkut rek moom lim lay jàngal ne na bëy wi bu naanee dañ koo jox bu lekkee dañ koo jox koo xam ne boo naanee dañ la jox boo lekkee dañ la jox buñ la fàttee nga xiif mu ne kéwal gi ci àll bi la nekk rek tabarkàlla moog ñax maag yu ni demee bu ñaareel bi ci yàlla yëm ne da ko saf mooy ñu bennoo bu ñaaral bi ci yàlla nee na da ko saf mooy ñu bennoo buñ ko bennalee ba noppi ñu bennoo allahu akbar buñ ko bennalee ba noppi ñu bennoo te bañ a tàqali ko waaw mu ngoog nee na yi ko soof ci ñun ji ko soof ci ñun mooy xiila wa xaala nettali bu bari yàlla nee na loolu nim ko soofe nit koo xam ne kii nettali rek tabarkàlla nettali rek barab bu mu toog lu ñu fa wax bu jógee yóbbu ko yàlla nee na loolu nim ko soofe <laughs> wax na dëgg de waaw jeeg boo xam ne fu mu toog moroomam jeeg yi wax ba noppi mu gàddu wax ji tabarkàlla saare ko ba mu ne taaj mu ñëw toogaat jëlaat waaw bu fekkee ñaar ñuy sëy bu ca waxee mu yàqu bu fekkee patron ak patron bu ci waxee mu yàqu bu fekkee sëriñ ak taalibeem bu ci waxee mu yàqu moom daal loolu mooy liggéeyam suñu borom nee na nee kooku moo ko soof xëy la wax xaala mu ne ah mu ne yéen a ma soof <laughs> nda ko waaw mu ne bi ci tegee mooy bërib laaj mu ne bërib laaj aka soof ndax koo fekk ku bërib laaj du jëfe la muy laaj mukk au lieu mu laaj xam jëfe bu àggee fu mu gage mu laajaat déedéet day laaj rek bokk na ci laaj bi nag laajum laajum xaalis jox leen ma jox leen ma jox leen ma jox leen ma judul dakk mukk mu ne bi ci mujj ci yi ko soof mooy yàq alal gaspillage je pense que noonu la professeur jël alal di ko dugal fu mu war dugg aj màkk gaa ngi ñëw tabarkalla yàlla ñu fi fekk buy dem bàyyi nu fi bari na koo xam ne ki yoon wii muy demaat ren yoonu yoonu sànq alal ak yàq ko wa daaw wa it noonu mooy ki xas dem farata deuxième ak troisième ak quatrième dañ koy seet waxumalaa nag mu del si di tàntaka tabarkalla rey ay nagaka yebbi ndax jóge màkka léegi jigéen ñi dañ ko wutal ay yebbi ni ñu ko wutale ci ngénti la ndax ngénti yeeg ceet yi dañoo bëreetut <laughs> waaw <clears throat> ndax comme jeeg yi dañuy planifier buñ dee planifier ngéntal dootu bari comme sëy yi bariwut ngént yi bariwut jigéen ñi bëgg wut beneen barab bu ñuy foye mooy barabu tabarkàlla di yebbi ci ci ci ci dëj yi di yebbi ci aj màkk gi fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un <clears throat> ndeysaan xew yi doyatut ndax xew yi bareetut ndax ndax dañuy planifier waaw ku am doom ren bala ngaa amati doom mi eh, deux mille deux mille deux mille vingt quatre mbaa mu jege ko seet <laughs> yàlla nu yàlla musal waaw looloo tax jigéen ñi changé affaire bi yóbbu ko ci eh, bu ñibbisee ci aj màkk gi foofu lañuy ñuy séddalee série ak ñoom seen yooyu fa la ñuy yebbee léegi fa la ñuy joxe eh, tabarkàlla teraanga yi yóbbu nañ ko léegi ci dëj yi ndeysaan sànqal su mujj seeg tabarkàlla may gu mujj fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yonent bi nee na ñoo yàlla nee na ñooñu niñ ko soofe ñu jële ci warraat kaatibil muxiira ibnu shuba mu ne am laa alayya al muxiira ibnu shuba fi kitaabin ila muawiya muy dafa am benn bis moom kaatibul muxiira warraad mu ne muxiira da ko dicté woon benn lettre bu mu waroon a bind Muawiya waaw mu di ko ko dicté ginnaaw moom mooy secrétaire am mu ne ko ay ci bindal anna nabiyya kaana yaqul fii duburi kulli salaatin maktuba yonente bi aleyhi salaatu salaam daana wax daana wax ginnaaw saa bu jullee jullik farata ba sëlmal suba tisbaar takkusaan timis gee lii la daan wax su noppee xam naa kon ñiy déglu daañ ko noté waaw la daan wax su noppee laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir allahuma laa maanica lima actayt wala muctiya lima manact wala yanfacu zal jaddi minkal jid minkal nee na li la yonent bi daan wax alayhi salaam su ma sànn sëlmal yàlla yow rekk yàlla kin wër laa bokkaaleeg dara yaa moom nguur yaa moom cant lu ne yaa ko man yow yàlla koo xañ du am koo jox kenn mënu koo xañ ndeysaan koo xañ du am koo jox kenn mënu koo sañ waaw kenn mun siif daa bind ko nag bi mu ko jàngale loolu ba noppi ne ko yonent bi nag daf daan tere xiila waxaala nekk li bu bari yonent bi daf ko daan tere mu ne ko waaw mu ne ko idaatil maali daf daan tere gaspiller alal yàq alal mu ne ko waaw mu ne ko daf daan tere kasratu su'aal bërib laaj jox leen ma joxleen ma jox ma jur dakk mukk mu ne daana ko tere mu bind ko ci lettre ba ne ko daana tere xuquuqil ummahaat dëng say dëng say waajur daana tere dëng say waajur wa wa'dil banaat daana tere planning waaw suul doom yu jigéen yi daana ko tere <laughs> aw xeet la ci planning tubarkalla doom jigéen ju am rekk suul kii ne man dama ko dul am sax far daana tere man in wa haad xañ ko war a am walla jox kuñ war a xañ yooyu itam daana ko tere xañ ko war a am kii ay diplôme la am yu baree bari tabarkàlla mën na jàng ñu xañ ko palaas ba kee moom amul benn diplôme ñu jox ko palaas ba place bay tàmbali yàqu rek tabarkalla jërëjëf beneen bunt ngoog euh, meneen jàng ngoog waxtaan wi jeexut dañu ak suñu kor yëkkatee ci karam tuuti ñu weelaat ko ci li nga xam ne moo ci tege ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu nangul nu nangul leen tabarkalla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ki nga naan doon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illal islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah yal na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def sunuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu